niñ ko jëndee nag comme ñëpp niñ koy jëndee lañ ko jëndee parce que on nous a présenté un droit réel boo xam ne turu Matar Thiandoum moo ci nekk mu ngi ne sama oto mun naa ko génne won na ko léegi ñu dem contrôler mu am ñu jën jaay ñu terrain yi ñu jën ba 2016 wax sax 2016 di toj suñu terrain yi fële na le Doudou baas booba moom Euh, kii bi euh, euh, doyen de réel bi nekkul sax ci turam lii dafa yàgg ñu ñuy yàqal te duñ ko teg fenn yaa ngi dégg baax ma la ñu ñëw ba léegi ñu toj suñu kër yi ñun on pas là pour HLM on est pas là pour Matar Thiandoum ay victimes lañ léegi nag ñun dañuy laaj ba xam Sénégal lañ nekk wala Mali wala Mauritanie parce que yow extrait de naissance lañ ne présenté bu réel nga jënd mais bu ñu tej sa kër nañ ko nañ nañ nañ la nañ la sax wax lu leer parce que ñu li ñu mënul concevoir tey HLM eh, H&M ne moom moom yow fi nga moom Matar Thiandoum toog fële di lekk ay ginaaram yor climatiseur am ñëw jaay fii nit ñuy tabax ñoom ñu koy xool mm-hmm. ñun ñu mën a yàqal ñu te moom ka jaay ma nga toog mm-hmm. Mm-hmm. loolu fu ñu ko teg am na luy ñuul ci soow mi am na luy ñuul ci soow mi léegi nag lii problème mu état la problème état bi nu mu nekkee HLM ñun ñoo ko fi teg ñun ñoo ko fi teg amul suuf moom day jënd di jaayaat te bu ñu fi jëlee ñeneen la fi indi te loolu ñun duñ ko d'accord suñu bakkan bi lañ ci teg waaw waaw suñu bakkan bi lañ ci teg ah parce que lii biñ ko jëndee yàgg na te fii yëpp ay daan doole fi rek comme na ma ko waxoon boo fi fëggoon tey doo fi gis ku am bulletin de salaire kon ñun faalewuñ état suñuy dërëm ak suñu ñaar dërëm la ñuy dajale ba mun koo def fi indi suñu njaboot ku fi gis àll bi amul courant amul ndox nga ñëw jënd si fi c'est parce que am na nu mu demee suñu sañoon ay ay ay Mermoz la ñuy dëkk kii ay Nord Foire mais lii moo doole suñu doole ñun fii mooy suñu Nord ak suñu suñu suñu suñu Dakar ah. waaw billaahi kenn du fi dëkk man man man dama paar parce que man damaa dem vingt cinq ans laa def Europe ñibbisi sama live laa def man xaw ma kan waaye xanaa ñu tëj ma ci kaso bi man nëbbatuwuma waaw waaw man sama bakkan laa ci teg waaw. léegi bi problème bi amee est-ce que ki delluwaat ngeen ci ki leen jaayoon kër yi pour mu jox leen explication. waaw bañ fa delloo explication ba ñu demee tey par exemple ñun en mille 2018 lañ demal suñu bopp gis droit réel bi HN HLM nekk ci. mais seen HLM tamit moom day baax ni mu jëndee baaxul parce que on peut pas nit ku ku yenu maanaa 74 hectares nga koy jënd ci 3 milliards 800 millions yow loolu du logique du logique kooku loolu bu waxee loolu waxul dëgg waaw waaw loolu du yoon waaw waaw loolu du yoon loolu du yoon léegi loolu loolu du yoon ku ne xam nañ léegi moom parti bi mu jëndee moom fayul moom fayul dama leen wax ñun ñëpp ñoo fi nekk moom fayul dara parce que cinq cent millions la débloqué jox ko fay bi li ci des da koo bloqué parce que lii moo fi xaw parce que xam na ne dafa leer li nga jënd kay doo fay xaalis mi ngi ci notaire bi ah yow dossier boo jënd mu leer ñu la woo appel blidis bi dafa waroon dem tribunal kon moom xam na ne li mu jënd leerul te et puis nañ waxante dëgg jarbaat fu mu amee possibilité di jaay papa xanaa doom war na faa taxaw nañ waxante dëgg quoi nañ waxante dëgg quoi waaw doom ku kan mooy doon sa kër baay di doon kër baay jàmbur kenn seen doom pour seen doom nee tax ñuy liggéey waaw ma Thiandoum mi ñun garanti wuñ ko état moo moo def lu tax moom mu bokk ci suuf parce que moo ko accordé droit réel bi ci turam pendant presque quinze ans kon kooku lan la man man man Moustapha dinaa ñëw sama këyit rek ne defal leen ma doraree te amul fu ñu ko teg. autorités yi xam nañ ko parce que ñoom en 1956 ah le bordereau analytique bi ñoom seen famille defar seen seen këyit ñoom yi neen lañ. Mhm. léegi li ñuy ñaan président mooy quatre parties yëpp dañuy perdant parce que kenn jotagul. Matar Thiandoum dafa seede suuf si ñun la ñu toj suñu kër. HLM mi ngi bëgg a jot këram mënul jot. Mhm. parce que ba mu commencé tabax fële 2016 juge bi da ko chaché na ko toppal foofu génnal foofu fépp arrêté na travaux yi boo demee du Doudou Bass man xam naa dossier bi am na loo xam ne kenn du ko wax. lu ma ci xam dafa leer. yow mënoo jënd fen tamit et euh, juge na la génnal nga génn kon am na luy ñuul ci soome ah ah nañ yërëm jaam yi nañ yërëm jaam yi jaam surtout ma ñun ñii. waaw liggéeyuñu amuñu sa amuñu dara dañuy dugal di génne rek bugguñu lu dul dul jël suñu njaboot gi dugal leen fenn nañu dimbale ngir yàlla nañu dimbale ngir yàlla. d'accord mais su fekkee su fekkente ni tey ñoom euh, delluwul ginnaaw lan mooy. non buñ delluwul ginnaaw duñ dellu ginnaaw. loolu moo fi ne amul fi. waaw waaw waaw dama buñ delluwul ginnaaw duñ dellu ginnaaw. li appel la lii appel la route nationale baa ngi ne autoroute baa ngi ne ñun nañu jàpp tëj ñu ba pare ñu doog seet nu ñuy def waaw waaw suñu bakkan lañ ci teg amul dara luñ ciy nëbb amul dara luñ ciy nëbb parce que loolu moo fi ne loolu moo fi nekk asalaamaaleykum rahmatulah ñu ngi leen di nuyu ñëpp di leen ziar man la imam Deme ñu may woowee Adama Deme imam Deme euh, man nag maa ngi dëkk Zac Mbao nag <laughs> waaw mais fii laa am suuf waaw fii laa am suuf ci njaxirat gii voilà léegi mooy li sama mbokk mi doon wax rek xam nga mbir mi SNHLM état la te dafa am loo xam ne état moo ko war a sàmmal askanam bon ñun ci loolu lañ nekk ñun loolu état moo ñu ko war a sàmmal mooy suñu alal état moo ñu ko war a sàmmal muy dariyaatul xams wala kuliyaatul xams dafa am juróom yoo xam ne nii ci diine état moo ko war a sàmmal askanam te mooy bokk na ci alalam. te ñun suñu alal la yàq bon fii état moo mënoon moo mën a tranché parce que mënoo jënd loo xam ne comme ni ko sama mbokk mi waxee man xam naa ci lu bari ah xam naa ci lu bari parce que dossier bi tey naa ko une semaine pour être clair lii ko xool mais nag mënoo jënd jënd ba pare ki nga jaay ki nga ki nga jaay moom mënta jot xaalisam bon y' a y' a y' yaa yaa a un problème y' a un problème nañu wax dëgg yow jaay naa la yow mën na koo jot y' un problème. yow SN HLM yow mi nga xam ne yaa yaa jaay mu a koo jot sa suuf yow mi nga xam ne yaa yow yow yow mi jaay mënoo jot sa xaalis bon donc y' a un problème y' a anguille sur roche donc lii na kan moo ko mën a tranché muy état bon ñu ngi interpellé l' état te SN HLM ci ci état la état la te dafa loolu tax muy jël suuf pour dimbale askan wi la te ñun ci askan wi lañ bokk. SN HLM fekkee li ñu wax dëgg la ñoom dañ fay nekk pour dimbale askan wi ñun askan wi lañ bokk est ce que bon léegi dafa am ñaari askan ci Sénégal. ñun ñii ñun ñu bokk ci askan wi ñu nangu suñu suñu alal jox ko gën ci askan wi yaa yaa bon bon léegi ban dëkk lañ nekk ñun ban dëkk nekk bu fekkee SM SM état la te état te askan wi moo ko fi tagal toogal bon nañu nañ ñu bàyyee si ñu lu ñu moom te ko bàyyee te yàlla tax te xam ne lii nii nii nii lépp loo fi def fii billahi yawmal qiyaam dañ ko lawaat sa kanam borom dëgg gi nag kenn moom moom dëgg gis nga ñu ñi dañ da ngay wax benn affaire la yàlla waxoon Muhammad sallallahu alayhi wasallam laay wax wa taxsa naas wallahu ahaqu an taxsha la ma waxoon ci suutu azab moo ko yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ragal nit ñi ragal man yàlla bon ñun nañ ragal yàlla bu ñu ragal benn nit état du kenn yàlla moomum lépp yàlla mooy état ku fi nekk di jaay doole yàlla moo am doole SNHLM doole amu ko ñi ko yëf amuñu doole allah subhanahu wa taala moo am doole bon ñun suñu bopp jox nañ ko yàlla te nag di dox lu ñu moom ndax dafa bokk ci ci wàllu jullit jullit bi muy xeex alalam ba jot ci même buñ ci jëlee bakkanam yàlla ñu yàlla jàppale yàlla ñu yàlla defal sutural allahu barik fiikum man sax mënu wax bu baax ndax lii man barki démb laa ko yëg barki démb laa fi ñëw lu ne daj naa ko lu ne am sama déem ak sama daqaar dem naa ba munatuma liggéey yore feebar dere pono sama doom yore dere pono fayum lu ma luwaas arrangé tuma man bi ma fondement ak léegi si 4 mois la toll jël sama 2 2 cinq cent mille def ko fi te munoon naa koo liggéeyee leneen doon liggéey ma toog ne tocc toog. man affaire bi métti na ma méttiwaay boo xamante ne xaw ma fu ma koy waxee xaw ma fu ma koy waxee man dëkk bi yëpp yëg nañ ko te yëgu ma kenn sañ ma koo wax ndax ni ma fi sonnee feebar naa mënatuma liggéey li ma jotoon am def ko fii pour mën a toog fii di ko suturloo maak sama njaboot ma ñëw fekk ñu rajaxe ko man barki démb laa ñëw yëg affaire bi métti na ma trop nag may ñaan état di ñaan makk Sall ci boppam nañu dimbale li laay war a suuli ngir yàlla te yàlla tax nañu dimbale ñu jotaat suñu suuf sii ñu koy ñaan yàlla suñu borom yàlla na ko yàlla yàlla na ko Macky Sall def ma sama xol dafa fees ba maa wax nañu dimbale laay war a suuri ñun jigéen lañ ay néew di nañ suñuy doom tollooguñu fenn man sama taaw ci vingt ans la toll góor la ki ci topp dix-huit ans la am xam nga ne ñooñu mënaguñ maa dimbale li ma jot a am ma def ko fii pour ñu mën maa dimbale ma toog fii sutura la ak ñoom ma ñëw fekk ñu dindi ko xam nga ne loolu neexu si xol sama xaalis tey jii bu ma ko fa tegoon tey jii am na feneen fu mu xajoon si man mbaa mënoon naa koo amoon feneen dëgg la nag xëy na Pa Thiandoum nag dimbale néew di doole rek moo ko taxoon a jóg dimbali néew di doole yi rek moo ko taxoon a jóg waaye nag jàmm ak pexeem yàlla ak dogalam ñu ngi jël lépp tog ko ci loxo yàlla suñu borom di ñaan Macky sàll mu dimbale ñu li laay war a suuli suñu suuf si ñu mun koo jotaat loolu rek la ñuy ñaan Macky sàll ci barke Seydina Mohamed te yàlla na ko yàlla def képp ku fi def sa dërëm yàlla ba mu naax saay mukk mukk mukk mukk mukk maa ngi koy ñaan ci barke Seydina Mohamed yàlla na ko yàlla def. waa dans un premier temps ñun euh, on a rendez-vous avec euh, le collectif euh, Guy Marius Sagna parce que tey à 17h war nañu gisee waaw tey tey tey à 17h war nañu war nañu am nañ rencontre ak ñoom parce que ñun gis nañ ne mbir mi ak tappale gu def ci am parce que. tey bu ñu toogee ba tey ñu ne la chaîne HLM ñoom dañu euh, euh, dañu jënd suuf bi te euh, droit rail bi mu ngi ci seen loxo loolu gis na ne ak tappale da ci am parce que rapport du cour cour des comptes 2014 dañ ko jot liir nañ ko xamal nañu nu chaîne HLM ñoom dañu déclaré à 3 milliards 555 millions la ñu jëndee suuf bi alors que rapport bi gis nañ ni loolu ak tappale da ci am ndax 2 millions 6 2 milliards 69 millions lañ lañ lañ lañ lañ la ñu déclaré. bon beneen bi ci des mooy ñun bordereau analytique numéro en kii nga xam ne mooy mooy wayjuru euh, Matar candum di Mandiaye candum il faisait partie du 11 recette parce que suuf bi euh, juróomi famille ñoo ko seqoon mais ñeent ñi dañu jël suuf bi jaay ko la SNHLM bàyyi ki nga xam ne la fa Mandiaye Thiandoum bi nga xam ne moo jur euh, Matar Thiandoum bi ñu jaay ñun kon tey ñun li ñu soxla mooy vraiment le président de la république woo ñi nga xam ne les concerné muy famille Thiandoum ak famille Faye bi nga xam ne ñoom ñoo jaay laay seen HLM vraiment ñu indil ñu ay éclairci éclaircissement par rapport ak li nga xam ne moo xew ñun loolu vraiment ñu ngi koy ñu ngi interpellé le président di oo bépp mbootaay yi nga xam ne ñu ngi xeex injustice ak li nga xam ne ak jaay doole mu ngi ci vraiment ngi leen di invité ci mbir mi nga xam ne moo moo xew ndax tey ku ne ku gis li xam ne tey bu démb doon tey xëy na ak li ñu xam ci suuf. te yaakaar naa ne ku mel ni man jaay ma suuf dina dina jafe parce que ñun xam na ne carrément dans un titre foncé transaction yëpp se fait dans de devant mais ak ñàkk xam xëy na peut-être am na xas nañu dugal suñu suñu alal mbo mbooleem koo xamee ni xam nga ko muy xarit di di am jàmm di am am di jàmm di mbokk invité nga ko à ce mu jënd comme ni nga jënde tey ba ba dëkk ci parce que faute am na ñu ñëpp xam nañ ne faute am na mais ñu dañ investir li ñu am yëpp dañ ko def fii xës nañ ko fi def kon kenn rek la nu mën a oo pour à mu def intervention muy le président de la kon maa ngi woo ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi nuyoo ci cité turu cité Thiandoum a ah, yàlla dogal na nag la commencé fii ba ca kaw nële maa fi njëkk a dëkk ci jigéen man maa fi njëkk dëkk ndax damaa yor sama njaboot ànd ak ñoom jàngal leen liggéey te liggéey bi metti dool yenu jaay rek la ñuy def. yanu jaay nii ma yor nii gerte kii ay banana yooyu la jaay ma di ko def ba sama caat mi tukki bi mu tukkee ñoom itam magam dem li nu for yëpp ngi fii moom it mu gis ko mu gis ko ndax ñun itam wax dëgg yàlla ñun pàccaanum dañ doon dimbali rek ay jigéen rek a fi ne yu dëkk Fass Mbao bu nu masaana ñëw ni ko pàccaanum kër la ñu bëgg lu ngeen di liggéey ñu ne dañuy jaay gerte dañuy jaay euh, banaana day ree genn wàll gi da leen a may genn wàll gi mu wàññilu jaay ñu benn prix bu fort sama doom gis loolu nag di faatu faatu ak magam ay magam sax ñoom ñëpp ku ne am na fi mu gis ay xaritam yi mu bokkaloon école te ginnaaw yàlla maa yàq njàngam <laughs> ndax njaay mi rek ndax bëgg rek boo lëggee ñu am fu ñu ne bu ëllëgee ñu am fu ne ñoom it ñu am jom lool farma ci loolu dama leen di yee guddi yee leen quatre heures de matin nekk ak ñoom ci àll bi ba xaaju guddi ñuy door a teer si bi ñu ñëw sama doom bu góor bi dafa xool fii bañ demee bay waxtaan ak pàccandu mu ni may fu ma ni ko man damay dem ca waa Fass Mbaaw mu ni may yaay yaay mu naa mu ni ma nan dem rek ñuy dem di dem ba mu gis tali bi ndax yërëm ma ni tali bi mel nii mu ni ma yaay nan kii fii ñu daal di may daggal bu ñu demee fe ca kaw sama kër nii la uufe tali bi maa fi njëkk fa tabarakallaw li mu wax laay maa fi maa moom ñoo dëkk waaw maire bi xam nañ ko baax ñun ñii maa sama mag ñoo dëkk ñun ay baayo lañ ñoo nekk ay xale yu ndaw di góorgóorlu suñu papa teel a génn àdduna sama mag da jënd fële fa lañ dëkk man ma jënd fii si ginnaaw loolu tey boo ko yaakaaree ñu ñëw yàq ko tey yow fan nga jëm ak sa avenir xale bu ndaw bu yàgg góorgóorlu état war a dimbale war la jëndal kër oto gaal yi ñu fi gaal yi gars yi dem di dee lu mel nii rek moo ko waral leneen waralu ko dee gi ngeen gis si àdduna bi dara andiwu ko lii rek moo ko mbooloo mi waaw ma fi teewal ñëpp rek bépp jigéen bu fi nekk ak bépp góor bu fi nekk ndax li ñu dal dafa metti ndax ñun dañuy ay jigéen amuñu doole yor si ni njaboot gi ci sini kër yi ñuy jàppale sini jëkkër yi te yàlla tax te xam na ne ne góor ñi metti na pour ñu mën a am kër pour mën cee dugal si ni njaboot bu ñu jàppee fii ñu jàpp fii ñu jël si ni dërëm si ni ñaar dërëm fortaatu fu ne lu ne lañu ñu daj ba dojale jënd si ni am ñëw jënd ci suuf si lépp bëgg am fu ñu dugal si ni njaboot investir fi si ni xaalis lu ne def nañ ko leb nañu banque dugg nañ ci pamekaas yi lu ne dugg nañ ci borom kenkaayir yi ñu ngi leen ameel bor yu dul jeex ñu tabax ba toll fii ñu toll ñu ñëw rajaxel lépp te ñi ay jigéen te yaakaaruñu dara gannaaw yàlla lii lañ mooy nekkoon seeni yaakaar te ñun tamit jaaxle nañ jaaxle goo xam ne est-ce que yaakaaruñ ne tamit suñu wërsëg dafa jeex ndax lii lañ amoon lii ret moo nekkoon suñu yaakaar am na ci ku jigéen koo xam ne nii fii jëkkëram dafa gaañu amul lu dul trois million trois cent cinquante mu fexe fexe fexe bay lijjanti pour lu mu kuulee ñaari néeg pour nu mu fa dëkkee ci suuf la dëkk ci digg mbedd mi di xaar nu mu ñaari néegam ñi ñëw daaneel bëti maam bi am na ci beneen jigéen boo xam ne ni lu ne daj na ko lépp na xaalis bu dul jeex ànd ak jëkkëram yëkkati ba ware a kuulee ñi ñëw na teel bëti maam am ñoo xam ne fii seen papa moo leen dimbali ndax seen jaboot yëkkati xaalis 4 millions may ko mu takkale ba yaakaar ne moo ci nekk ñu ñëw ne renn këram ak góor ñoo xam ne fii am na ñoo xam ne sax par benn séance la ñuy defar ngir bëgg fu mu dugal seen njaboot am na ci waaju ne fi nga xam ne fàllu lañ koy wax chaque jour dama koy gis day ñëw par benn séance lay def barki yonenti yàlla Muhammad day takkale lu mu am ci semaine par benn séance lay monter pour bëgg fu mu dugal njabootam gi ñu ñu daaneel fii ñëpp dafa metti ay néew di doole dong lañu ñuy ñaan nag te yàlla tax président boo déggee lii ñun si ni lii gannaaw yàlla si ni borom yaa ñu ko mën a fajal ñu bëgg nga teg ci sa loxo Omar Gueye jàmbaar la macha allah ku ko waxul waxoo lu am musul génnee loxoom ci ñun waaye ñu ngi ñaan. képp borom doole boo xam ne lii yow yaa ci man dara nga dimbali ñu tey yàlla tax ndax jaaxle nañu amatuñu beneen yaakaar seen yaakaar yëpp mi ngi fii ñu def seen yaakaar yëpp mi ngi fii ñu def ñi ngi koy ñaan ñëpp nag wasalaam. damay doom lañ ku ma ci romb rek defal na ma teraanga damay dem ba naan man de man de dafa mel ni ñaxeret laa juddoo. buñ ma rombee naa maman yow de yaa ñu gën a mën a may fa seef yow de fii nga nekk ma ne fii laa ana courant ma ne courant amut bu guddee fii day lëndëm ma ne leen déedéet du lëndëm da ñëw leen ñëw leen ñu pelloo affaire bi neex ma kontaan tabax sama ñaari néeg ba defar ba commencé séance noonu rek ma dem marché bi ma ñëwee damaa doon loolu dama ko doon sama sama borom kër 4 million laa amoon ak 500 sama doom bu jigéen jël genn wàllam na moom day ànd ak jëkkëram ma bàyyi ko ma ne ko jox ko mu dem. Mawlaana laa naa àndal ak yàlla ak bi ak sama borom kër mi sama papa mi jël jël jël ma jox ma jox ma sama borom kër ma nekk xale bu ndaw xonk cooy mel nu ma neex toll ca kaw ku ma la mësoon ne la tipp téye la doo dem barke Mouhamed su ma la mosoon téye nii góor téye ko ne ko tipp téye ko du départ du départ tant que bàyyiwuma ko sama loxo du dem loolu yëpp dooleel yàllaa ko moom moo koy jël rafet ñaawaay rek la du jël ci nit mais lu lu la yàlla may rek da kay nanguwaat waaye ba tey nag ma gëm yàlla jullit ci yonent bi Seydina Muhammad te xam ne lu am rek yàlla la ndax tey jii maa ngi ko bokkaloon nag sama wujj te fekkewu ko ay doom ñoo jël seen xaalis kon nga xam ne man lu ma am du sama njàmbaar du sama doole loolu la ma defal sama kër ba pare dem marché ba ñëw ñuy génne xale yi ci kër gi police bi daal di leen xool xale yi yuuxu ba ñu yuuxoo mu ne leen ay waay yéen lii ngeen xam ne moom la ñuy xoolee seen sama papa ngeen koy toj kenn ki maa ngi ko fekk mu xam meew bi ma indi woon pour xooyalee beño bi moom laa yëngal di ko ko jox ba mu jóg waaye man daa xam nga kan laa àndal yàlla ak yonent bi sëriñ Babacar si moom laa jox samay loxo waaw waaw yàlla mi nga xam ne daal mooy defar yàlla na ñu defaral ñun ñëpp ba kenn ku nekk ñu toogaat ba déwén di ko fàttaliku naan leen fàtte ngeen weer wi fàtte ngeen jour bi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam waaw yal nañu yàlla jàppale métti na torop mais àndeen naag yàlla ak yonent bi waa waaw